acca salaamaaleykum chers amis internautes yu Feeling Dakar TV ñu ngi leen di nuyu tey am mbégte ak contentement saa su bu ñuy feeñ ci seen kanam écran tey nag ñu ngi leen di defal benn reportage boo xamante ne dañu koy def ci li nga xamante ne mooy kaaw Idrissa sa Gueye Idrissa Gana Gueye bi nga xamante ni international sénégalais la mi ngi nekk ci club nga xamante ni mooy di Paris Saint-Germain di fa football. moom dañu ko bëggoon solo benn mayo boo xamante ne dafa am couleur borom ñaari tour yi Idrissa Gana Gueye lànk bañ daare ni du ko sol. ñu def dara lu dul dugg tàllal sunu micro ñi nga xamante ni ñoom ñooy yi ñu wax ñu gis-gis bi nga am bi nga xamante ni am nañ ko ci loolu noonu nga xam ne sa Gana Gueye def na ko damay ànd ak moor sama caméraman ñu dugg xool gaa yi. mbokk yi ñu ngi ak uh, Sidi Kane Sidi nuyu naa la. fay nañ la. Sidi ñu am lu ñuy waxtaanee tey reportage boo xam dañ koy def ci kaw Idrissa Gana Gueye ñu gis club bi mu nekk Paris Saint-Germain. ñu bëggoon ko solloo benn maillot boo xamante ni couleur borom ñaari tur def see nekk mais moom dafa lànk ndaare bañ tëdd suuf ne du ko du ko sol man gis-gis nga ci am en tant que sénégalais. waaw gis-gis bi ma ci am en tant que sénégalais mooy bala may def dara dama koy rafetlu li gànn def ñaanal ko ci yàlla nag parce que ku ku aaje ñaanal la suñ borom kàttanal ko ndax man euh, damay suivre football di seetaan football xam nga daaw mu def na ko booy boycotté match bi. ren jii nii man bi ma ko bi ma ko bi ñu demee ba match bi tàmbali gisuma ko rek ma gis moyen bi ci laa xam ne gaana li moom moo tax mu mu daw match bi avant tamit médias yi di ko di wax. mu nekk loo xam ne geste bu rafet la boo xam ne man dama cee kontaan ndax li tax ma kontaan ci mooy nit ki da ngay fonk sa diine parce que diine moom moo jiitu avant lépp. waaw parce que nit nit ci boppam amul lu dul diineem amul lu dul lu dul gëm-gëmam te nit ki tamit am na am na moom moom boppam parce que bu nee droit de rek nit ki am na droit. nii man lii nii duma ko duma ko def wala mbub bii nii duma ko sol am na ci plein droit parce que sport euh, football la man ngaa am ay sponsor mais waxuñu tamit ngay promouvoir ay ay mbir yoo xam ne si nii maanaam diine nit ki nungu ko wala dara ba bëgg ko cee forcer loolu moom nunguwuñ ko te it rafetlu ko ñun nag man ak sama moroom yi mel ni man tamit ñu ñu ngi ci ginnaaw gànn gànn gay danañ ko soutenir waaw li may wax sénégalais yi tamit mooy ñu soutenir ko. jël ay photos partagé ko def ko ay PB dugal ko ci yëpp ba nit ñi xam ne carrément ñun ñi kat taxaw nañ pour pour soutenir Gana yi ba gaana moom loolu noonu dana ko yokk courage ak jom ba ba mu gën a am fulo ci ci ci li muy def waaw noonu laa laaj ci laa laa ci gis daal. di ko message nga koy lancé moom Gana Gueye. waaw message bi ma koy lancé mooy ni ko fi nga teg sa tànk foofu la rek. fi nga teg sa tànk foofu la rek parce que Gana moom ku ne xam na ko depuis mu nekkee ci bi booy xool parce que booy yàgg gi mu yàgg ci équipe bi nii bariwul bariwul joueurs yu fi yàggee noonu. waaw li ko may nag mooy fulaam ak jomm ak faydaam man de wax dëgg yàlla lii nii dafa tax ma gën koo fan bu ma ko bëggoon benn gën naa koo bëgg fukk ndax ndax geste bii nii di wax booy yoo xam tamit ñu ngi ci suuf ñoom it ñoom it ñu ñu xool ci gànna waaw xeex lii gànnay xeex bu ab bu jotatee ñoom ñuy sol seen mbubu yooyu noonu ñoom ñu taxaw booy kote comme comme gànna bu ko defee loolu da leen di may doole mais bu ko ñii nungoo ñii bañ ko rek maanaam affaire bi mën naa indi ay kii ak noonu nañu taxaw ñoom ñëpp bañ ñoom ñoo xam ay doomu sénégalais rawatina nekk ay doomu jullit ñoom ñëpp nañ taxaw bañ Gana daal maa ngi koy lancé message boo xam ne si di ko wax ni ko fi nga teg sa tànk foofu la bu la fi dara jëlee nit ki nag moom boo nekkee ci dëgg danga nga bari ñu lay xuqatal ñii di la kii mais yow xamal ni dëgg rek moom mooy dëgg te dëgg rek moom mooy mujj dara gënul foor dëgg fu nga teg tànk foofu noonu la di ko wax daal moom ak lu mën di xew sénégalais yi kontaan nañ xaw ma papaam xaw ma yaayam fu ñu mën di nekk mais la leer moom kay kontaan nañ seen doom loolu rek moom moo am njariñ kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm. fay lës la ngay wax hélas la quoi surnom bi lës la. ayca lës ñu gis Idrissa Gana Gueye ah ak coow bi mu am maanaam mayo biñ ko bëggoon solo te moom mu sàmm ñite ak ngorom te respecté waa Sénégal aussi tamit ah loolu lañ la doon laaj yow sa gis-gis ak xalaat bi nga ci am. waaw Gana li mu def ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax c'est parce que mënoon na jékki xool ci xaalis wala comme yenn yenn mbokki sénégalais li ñuy wax naan benn kii la rek day jàll. loolu noonu ñoo ngi ko ci encouragé bu baax te incha allah rabi ñun ñooy ci ginnaawam quoi te li mu def nii tamit day tax yeneen booy yi nekk ci école fu yi nii ñu bàyyi xel nii maanaam li Gana Gueye def nii quoi ñoom it bu ñu demee ba génn ñu ànd seen dignité ak seen ngor quoi ñu nekk si loolu noonu. c'est parce que Gana li mu def nii bu ko neexoon mu def ko kenn du sip benn moyen la rek bëri na am ñoo xam ni sol nañ ko ay grand joueur yooyu noonu moom xoolul loolu moom li mu xool mooy ah, ci diine l'islam la nekk te ba noppi aussi dafa nekk ci réew boo xam ni dañ leen bàyyi xel ci lu bari waaw li mu def ñoo ngi koy rafetlu bu wér a wér a wér waaw te ñooy ci ginnaaw te man bu mu sañoon tamit mu génn pare googu quoi waaw mu tànte yeneen club sampion la gaynde la ñoo ngi koy bégg bu wér a wér barke Seydina champion la. Gana jaayul ngorom quoi wax ne na ne alalu àdduna ak yooyu yëpp jaru ko. bu doon ay milliards jaralu ko ñun xam nañ Gana barke Seydina Mohamed xam nañ ko bu doon ay milliards boo am na ñoo xam ne bu doon ñooma instant bii nii dañuy xool benn jour benn jour la rek la 14 mai la daaw defoon na ko mu absenté match bi moog moog mu Diallo ñu jouer mu ñëwaat tey mu ni leen mu wax leen dëgg bi mu mu direct quoi. bon ko ci sanctionné tamit ñun ñooy si ginnaawam quoi ñun ñëpp ñun sénégalais yi nañ jug nekk si ginnaawam xaaruñu ci gars yi ñooñu noonu waa assemblée ñooñu gars yu mag yooyu noonu ah góor jigéen mag yi ñun xaaruñu leen si de ñun si ginnaawam lu mu laaj ñu laal foire bi sax dem ñun nan nan dem nan nekk si ginnaawam Gana daal na xam ni le peuple sénégalais la quatre-vingt pour le peuple bi ñëpp ànd nañoo ak moom booy ñu nekkoon monument di xeex ñëpp ngi ci ginnaawam. na jugee pare googu boobu comme que maanaam Ligue 1 dañoo ñàkk fayda surtout pare googu noonu na fa jugee dem Angleterre wala feneen seeti quoi waaw ñu même même Ghana li mu def noonu gars yu bari ñu koy bàyyi xel gars yi ay Pape du Ciss yeneen joueurs yi nan koy bàyyi xel yooyu noonu gars yi dañ koy dugal fu ne ci barrage ak capitaine yeeg fépp lañ koy dugal. Bamba Dieng sonn la mais Bamba mën na mën na sax ba bañ bàyyi xel mais li li def quoi daf koy yee. daf ko yee comme que gars yi bàyyi nañ xel ni baam gaa gànna solul moom ñu bàyyi xel ni sol na ak keneen ko mën a doon rek mu bañ a sol baama tamit na ko bañ a dalati ah na ko bañ a dalati waaw am sénégalais yee gën am tubaab bi tubaab bi bu la jariñoo ba sa doole jeex bàyyi nan la ñoom mun la jariñoo jeex na ana ana joueur retraite yu fi nekkoon engins yi kii lesande yi mag ñi da nga cey gis kenn ku yor club bu mag kutu Patrien Vieira la moo fi yor benn club rayante ko yóbbu tubaab bi bu la jariñoo seen contrat jeex a yow c'est bàyyi nan la nit ku ñuul bëgguñu si dara lu dul dooleem barki say naaw ay Koulibaly gaa yëpp na bàyyi xel yooyu kuñ ci takkaloo baraja bu ko amee bañal ba ndaw jar sax nga absent absent maxi bi du dara benn jour la rek comme que ñun dañoo nekk si réew boo xam ne réew bi ay quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman la ñuy wax te ñun ñu góor jigéen du fi am ñoom nag buñ matee mat ba yàlla dimbali leen ñu nekk fee ñu leen di xool ñu am dara ci tur bi ci ci tur dëkk bi nañ comme que ci responsable yi lañ waa nañ ñuy bàyyi xel bu wér a wér ñuy bañ a def yenn yi comme démb rek vidéo yi may sor seetaan gars yi li ñu doon wax buñ demee dañ koy def ba ba mu lamb ci suñ bëri quoi bu àggee après ñun wàllum sexualité dañ dañuy dem ba comme yooyu noonu dañuy dem ba ba mu kii ñun quoi dañ koy taamu léegi su ko defee nag ñun nag dootuñ ko bàyyi xel comme nag Gana ni mu def noonu Bamba ku mu mën a doon na koy bàyyi xel waaw na koy bàyyi am na ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey ko du xool li kii lu mu def nii kii lu mu def nii comme suñu ngóor si ni mu koy takkee suñu waay yi si borom biir bu réy boobu la. maa leen di ziar maa leen di nuyu mais euh, man sama jàngat ni ma ko gisee mooy d'accord jullit la euh, lim defit c'est bien beau rafet na. duñ ko condamné en tant que julit ndax loolu képp ku ko dingal rek dafay mel ni sax yow doo julit mais ci contrat la nekk affaire de football la dañ ko jël contrat moom moomatul boppam dèjà bépp topp mooy bi ci topp mooy football boobu muy def dafa xaraam football dañ ko du yëfu jullit dañ ko tere donc yaa ngi football jullit nga ci contrat nga nekk contrat jàmbur ñoom ñoo lay defloo ñoo lay jox mayo yi yow rek nekkoo say moroom nga fa nekkal te am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne ay lañ comme moom comprendre nga ñun nag dañuy bokk ak moom naqar bi en tant que jullit mais nekkul ci yoon loolu moom dañ koy wax nekkul ci yoon contrat jàmbur la li dañ ko koo soloo mais na sol xëy na loolu da koo sol mais nekkul ci moom nga sol ko taxul nga mu nekk ci yow quoi parce que liggéeyu jàmbur la boo demee bay fubal rek nga xam ne yow moomatoo sa bopp ñoom ñoo lay jël ñoo lay jox hôtel lépp ñoom ñoo la koy defal di la fay contrat nga am ak ñoom rempliral sa contrat yow waroo leen amel àq loolu mu def nag def na ko ñun nag dañ koy nangu en tant que julit man da tey bu ñu taxawoon ñu ne dàq nañ ko bépp julit na génn 5000 francs wala na génn nangam pour ñu jàppale ko man pare naa pour jàppale ko en tant que musulman mais nag du tee dafa tooñ loolu mu def tegu ko fen ah, yow da nga gis li mu def tooñ la. non non tooñ la moom non li mu def tooñ la parce que ci contrat jàmbur la nekk sol ko taxut mu mu mu publicité leen taxul mu nekk góor jigéen ndax xam nañ ne jullit la te te doomu jullit la. gis nga sol ko dafay firndeel ni mi ngi dooleel ñooñu. non seulement euh, moom na ko sol mais bu mu jàpp ne mu ngi leen di publicité na jàpp ne mayo la. publicité la parce que day bokk ci ñi leen di fësal. non mais mais bu mu gis loolu seulement bu ko defee ci xelam rek am na ñu ñi nga xam ne ñu ngi koy def di ko fësal mooy ñi nga xam ne dañu leen di fay ñu di ko sol di leen dooleel di ko di ko wane ci àdduna bi partout ñu di ko gis mais yow koo xam ne yow football moo la booleeg moom boo paree teg nga ko fële. loolu taxut mu dooleel leen taxul mu nekk góor jigéen góor jigéen ñun tudd ko sax bëgguñu ko parce que dafa xaraam fu mu teg tànk ñun waruñ fa teg tànk mais dama ne dafa nekk ci contrat mënoon na sol mayom mu euh, euh, euh, football pare delloo mayom teg fële taxul ma parce que loolu tey li ko def rek moo tax sax coow li am mais bu solol mayom football après lii kenn doo ko dégg sax kon yéen ñi sax du ngeen ci am benn yoon bay def benn reportage parce que après xelu nit ñi duñ fi dem acca mbokk internetu Feeling Dakar yi mbégte ak contentement la amaat bu baax a baax gis ngeen bi ñu duggee ci biir foire bi fii ak ñeneen ñi nga xamante ne fekk nañ leen ci ci biti dëkk leen sunu micro ci li nga xamante ne moo nekkoon kaaw Idrissa Gana Gueye ah, en tant que sénégalais ñoom dégg ngeen réaction yi ñu am ñeneen ñi ñi ngi ñi ngi rafetlu li nga xamante ne Idrissa Gana Gueye def na ko te ñu ngi dañ koy encouragé